ginnaaw bu ñu santee sunu borom subhaanahu wa taala julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam feddliwaat sunu yaakaar naa Ahmadul Xadim ñaanal ki fi nekkal seriñ Tuubaa di cheikh Mouhamadul Muntaxa yal na ko fi sunu borom gën a yàggal te gën a doole ak wéram waaye ñaanal jëwriñi barab bi ñu toog di sëriñ cheikh Ahmadou Mbacke moom sëriñ Saalihu yal na ko sunu borom may fan wu gudd lool waa ànd ak wér gu yaram waaye di fàttaliku ci ñaan jàmbaari lislaam jooju fi nekkoon di sëriñ Tuubaa cheikh Saalihu Mbacke yal na ngërëmul yàlla di wàcc moom li fekk doomu ngi dox ci kaw suuf mbokk yi ñu am mbégte toog ak dongay tarbiye yi nga xamante ne bii ñoo jaaroon ci loxoy sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké moom sëriñ Saalihu te jotaat ndigal nag ci moom ngir waajal liggéey ba nga xam ne moo nekk ca Daaru Salaam Maodo Murit te mooy bàcc tool yi gerte ya fa nekk jëri ko ak roñ gooñ ma ak ya ca aju yëpp te loolu ku ne xam ne ne dañ ca daan am ndimbal tey jii ba yàlla dogal ñoom ñu war a dem dimbale ji seen mbokki dongo ya fa nekk loolu moo tax ñu toog fii ci kër Serigne Salihu feggoo fi ak jëwriñ yooyu nga xamante ne bii Serigne Mouhamadou Diop jëwriñ dana ci ñëw ginnaaw bi mu jëlee kàddu leeral liggéey bi lépp su ko defee ñun ñëpp ñu maase déglu Serigne Mouhamadou jóob ci wooteeb liggéeyub Darou Salaam Maodo Mouride départ bi war a doon le 12 décembre. Euh, tàmbali liggéey ba war a dëppoo ak le 13 décembre incha allahu rabbi kon sëñ Mari Diop bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki donga tarbiyu yu daara yi Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Saliou seen mbokk mbokki donga ñoo dajewaat ci bis ba nga xam ne ci lañ daan daje euh, dellu di soññee ci ndigal li nga xam ni moom lañu sëriñ bi jox. ci Mbadilib Touba Daaru Salaam eh, di ci woo suñu mbokki dong yi yi nga xam ni ñi ngi ci barab yu fasantikoo ci biir réew mi ak ci bitim réew waaye di ci woo it suñu mbokki taalibe yi nga xam ni dañoo baaxoo di ànd ak ñoom ci liggéey yi aju ci biir kër sëriñ bi ñoomit ñu nekk ci gox yu fasantikoo ci biir réew mi ba bitim réew di leen yëgal ni euh, liggéey boobu ñu ngi koy waajal départ bi di tolloog le douze xam ne kon bis liggéey ba mooy nekk le treize euh, waajtaay bi nag nañ leen ko daan waxee rek euh, ku jóg jëm ci ay tool lépp loo xam ni bagage la yu tool di soxla bu ci xeeb dara diggante bàcci ak jëri ak for forma it yemul ci forum pak waaye bu ñu yeggee ci tool bi ñi nga xam ne mën nañoo bàcc nañu bàcc waaye ñi ko mënul it nañu daal di jublu ci forum gooñ dem yët ko ñiy bàcc ci naaf yi ñu bàccaale ko waaye it ñi nga xam ne mën nañoo yor seeni ndab di for gerte gi nga xam ne rooso roose na ca ndéqi ma moom it nañ ko def liggéey bu sell bu set wecc la sëriñ bi soxla te euh, liggéey bi ñun ñu koy liggéey ci aw yoonu liggéey bi rek ca la suñu mbir nekk ndax mën nañoo dem fexe ba tàqale gerte ge ngooñ mi indi ko te du mel nam nam war a mel mooy loolu melul na ko sëriñ bi bëgg kon ñun war nañoo dàkk ca bëggu bëgginu sëriñ ba ñu doxe ni te loolu weesu lu dul liggéey bu sell nañu xàjjale li war a xàjjaloo lu ci nekk ñu def ko fañ ko war a def defe ko nañ ko war a defe ñu ngi ciy woo mbokki tund wa xam naa loolu sëriñ Fàllu dana ci ñëw di leen xamal rek ni nañ ko daan waajale noonu rek lañ koy waajale bu soobee suñ borom daañu leen fa jiitu euh, dalal leen ku ñëwit da ñu fa fekk incha allahu rabi taala wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu xanaa di ci sof rek suñu jëwrin Serigne Cheikh Sakho mi nga xam ni ñoo baaxoo woon di ànd liggéey boobu ndax ñoo bokkoon sos daara ja ñoo ko sancoon àndoon kook moom di ànd ak moom liggéey bi ba daaw suñu borom dogal mu wàcc ci fan yee ñu génn yàlla suñu borom dolli ko aw yiw fa mu nekk te teeru ko ci ajjanaam yi gën a kawe ci barkeb Serigne Touba Xaadimu Rasuul barkeb Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Saliou waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu. bisimilah rahmaani rahiim alhamdulilah rabbil aalamiin wasalaatu wasalaam ala rasulillah asalaamaaleykum wa rahmatulah. yéen mbokki donga yëpp yenn mbokki taaliba yëpp yéen mbokki jurit yëpp. ak képp ku bëgg a liggéeyal Sëriñ Tuubaa ñoo ngi woo ñëpp ci liggéey bii nga xamante ni ñu ngi ko amee ci ñu ngi ko jote ci ndigalu Sëriñ Cheikh Mbacke moom Sëriñ Sarif Mbacke yàlla na fi yàgg lool te ak ku ni amin liggéey bi nag mbàcc ak bees la ak jëri ak for gerte ak dajale ngooñ loolu yaakaar naa ñëpp xam na ko waaye amul mag amul ndaw amul góor amul jigéen ku mën a dox rek war nga caa mën a barkeelu ndax ku munta bàcc man ngaa bees mbaa nga mën a for gerte mbaa nga mën a dajale wala nga fori gooñ wala nga maye ndox sax ci liggéey bi la eh, liggéey bi nag ñi ko liggéeyoon ba mu agsi fii naka jekk daan nañ ko yeggaleel seen bopp ba lépp ni coleet waaye sëñ bi daa jëfandikoo li Serigne Saliou wax ni du ma fekk lu yàlla yaatal ma xatal ko bëggal ñëpp njëriñ moo tax mu mu woote ci liggéey bii bëgg ku ci ñëw jëriñu ci ndax njëriñ gi ngay gi ci ñëpp di amee leer na lool ndax loolu Sëriñ Tuubaa moo ko waxal boppam Sëriñ Tuubaa moo ni fa kullu man xadda ma nii aw saara fan na ji wax fii lu aw saara ñaan na suñu borom képp ku ko liggéeyal mu musal la ci lépp lu jar a muslu fii ci àdduna ak àlaxira waaye nag mu jégal la say bàkkaar ba duutoo desee benn bàkkaar ñaan na itam képp ku ko liggéeyal yàlla faj sa aajo ci lépp loo sakku yàlla jox la ko te càkk teefub jullit bi ci ëpp gën cee rëy mooy àjjana waq di hawaaxije la ci na daamoo fii ma xidmati wa hablahum maaraamoo euh, bokk na ci itam li nga xamante ne sëriñ bi yéene na ko njëriñ yëpp muy jamono dafa toll foo xay xat na jafe na euh, lu baax ñëpp a ngi daw jëm ci waaye sellal ko ba am ko yombut waaye sëriñ Tuubaa ci pàggu téefam ak jagleem ko ko suñu borom jagleel ak yërëm gu mu yërëm jaam yi bala noo daw jëm ci liggéey moom fekk ñaan na sunu borom ni ko fa taxabal xidama xudaam yi ñi may liggéeyal ñëpp na nangoo noonu sunu liggéey bu yemoon si loolu rek jar na ñun ñëpp nu fox jëkkante di dem liggéeyal ko ndax loolu waaye da caa yëmul waaye dafa wax ni wala taxaram ujurohum boo ko xasee nangu bu leen ko dara xañati liggéey boo xëy nag boo ko defee ñu nangu ko te buñ ko nangoo duutoo ko ñàkk kenn mënatu koo xañ loolu daal jar na fu waaye mën a ne ak loo mën a ne ku ku ñëw te saw ñàq mën a ñëw it moo ñëw ñooyam nit fi mu teewul boo ko fa xam teewee mel na ni teew na fa liggéey la boo xëy daal aajo yi aajo ju fajoo ngi si biir si saaxir wa baatin di ajo ji fajoo nga ci ndimbal suñu borom ma nga ci tawfeex nga ci léegi nag eh, ñi ngi woo ñi nga xamante ni ñoo ñi daan àndal rek ci transporteur yi xam naa sax loolu dinaa koy bàyyi ak sëñ Fallou Galas dina dina leen woo waaye képp ko xaye itam am nga loo bëgg a leerlu ci liggéey bi nii man nga woo Serigne Mat Diop jëwriñ général ci 77 577 37 03 man nga woo Serigne Saliou Fall ci 77 534 75 05 mën nga woo Abdou Touré ci 77 456 24 76 ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di séentu ñëpp am na nag yalwaan boo xaye baaxoo naa ko def maa ngi dellu di ko def maa ngi yalwaan képp ku dégg sama kàddu nga jàng fatiha bu sel ak ñetti leex lexlaas ñaanal ci sëriñ Seex Mbàkke moom sëriñ Saalihu mu yàgg fi lool ba doon kiimaan képp ku ko def yal na la yàlla tàbbalaale ci biir ca lépp loo soom loo tàmbalee yal na ko yàlla ci daraja Serigne Saliou Mbacké wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ilaaha illallah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 noo ngi ñaan sëriñ seex werte yàgg fii yàlla buur noo ngi ñaan sëriñ seex werte yàgg fii